Euh, ñoom dinañu teg gouvernement bi nga xamante ni li mu ministre yi du bëri te it dina am yenn ministères yi nga xamante ni danañ ko boole mu mel ni la ñu diggoon askan bi également gis nañ ko puisque tey bu ñu gisee culture jeunesse ak loisir yëpp ñu boole ko euh, yeneen i ministères yi également ñu xaaj ko lu wute lool ak yi ni ñu tàmbaloon di gis ci régime bi génn ak it yeneen régime yi nga xamante ni yàgg na fi am ndax jàpp nga ni tey jii quelque part wàccoo nañu ak ñun ak aussi liste bi ndax euh, composition bi yow jàpp nga ni casting bi baax na bon euh, dama naan euh, euh, li ñu doon séentu tey moom la ñu gis daanaka li nga xam ne nii ñoom moom la ñu diggee woon ci limu gouvernement bi ak ni ko sénégalais doon xaare tey jii loolu la ñu loolu la ñu gis parce que buñ dee wax vingt cinq ministres yoo xam ne nii moom la ñu jëkk a tabb ci gouvernement bi te ñoom ñu ko daan prôné boole ko ci li nga xam ne ni moom moo di ci seen doxalin ak booba tey jii ñu koy wax tey ñu ñëw jëfe ko da nga naan lii mën na nekk man dama naan Euh, à chaque fois euh, ci wàllu politique euh, comme ni ko nit ñi di waxee comme ni ñu defoon ne palais nit la lenn la loo xam ne nii xëy na lu ñu kenn mënta découvrir la tey jii ñoom ñu ngi ñuy commencé wan ne que xëy na politique du woon li ñu leen doon gëmloo xëy na président Macky Sall defoon na ko ci ay début am muy limiter li nga xam ne moom mooy nombre ministre ministre ministres yi mais euh, da nga doon gis à tout moment mu changé dugalaat génnewaat aussi ñu tas ministère yi mu mel ni ay post yoo xam ne nii la dañ koy séddale euh, pour post yaa ma neex la ak yeneen nga gis ne tey jii ñoom nee nañu li ñu doon wax mën na nekk maanaam euh, gouvernement bu ndaw mais tam ñu jublu ci li nga xam ne moom mooy liggéey li ñu tegagum nag gisagum nañ ko ci lim bi ah dalagum na xel mm-hmm. te li ci gën a neex mooy Euh, bettul ñu bettul kenn euh, soo dee xool ci internet bi sax ni ko nit ñi jëlee mooy euh, ñii dañ naan la cette personne la ñu xam ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ñii ñu ngi leen di soog a dégg tey et te Sénégal moo soxla li nga xam ne moom mooy comme ni ñu koy wax ndëpp national te buñ ko dee wax dañ naan nañu indi borom loxoy set te yaakaar naa ni borom loxoy set du rek ñi xëy na yoroon ay ministère ak yeneen ak yeneen mais ñoom ci ni ñu ko tabee nga xool ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci biir gouvernement bi da ngay xam ne lu ñu togg la mhm. te lu ñu préparé la bien mhm. avant ñu koy ñu koy yàqal askanu Sénégal mhm. euh, par rapport ak euh, ñoom la ñu ko bëggee woon parce que euh, gisoon nañu kii nga xam ne moom mooy le ministre Ousmane Sonko daa le premier ministre Ousmane Sonko di wax daan wax naan dañuy dem xooli moo xam biir réew bi moo xam biti réew ñu Sénégalais fu ñu mënti nekk ñu xool kan la ñu mën a dénk ci xam-xam ci ay compétence mais tam euh, ci ko loxoom set yaakaar naa ne bu ñu gisee tey jii li wàcc tey bettul ñu baree baree bari te yaakaar naa ne comme ni ñu ko gisee gum sénégalais yu ci bari bari dañu ànd ci li nga xam ne ni moom mooy ci tabbinu gouvernement bu njëkk ci euh, régime bu bu actuel bi mhm. alors euh, Oulaye mhm. tey ñu gis gouvernement bu bees Euh, commentaire yi depuis tout yaa ngi gis ñenn ñi di laajte lu tax gisuñu ci ñenn ñu mel ni ñoom Mimi Touré ñu mhm. mel ni ñoom Maman Aïda Mbodj mhm. et autres donte ni nag am na yeneen poste a pouvoir yu nga xamante ni peut-être mënees leen ko jox ñu mën a gën a gunge li nga xamante moom euh, euh, bi yow ni gisoo si ñooñee mhm. ndax jàpp nga ni casting bi baax na et bu nekkee ne dëgg-dëgg ne moom lañ diggee woon ci bi nga xam ñu ngi doon wër nguur nekkee ne loolu rek lañ sukkandiku woon comme par exemple man je m'attendais très fortement tey société civile bi bëri torop ci gouvernement bi et franchement euh, nu mu tuddati euh, loolu lañ loolu lañ retrouvé euh, te je m'attendais aussi que ne parce que tout le temps je me disais que sur Pastef gisuma fa profil yoo xamante ne tey mun nañ occuper gouvernement Euh, te tey Ousmane Sonko peut-être gis-gis googu mu doon numtati bu doon wax ne euh, bu ñu jëlee nguur gi duñu duñu duñu du doon pàccoo mm. euh, tey boo xoolee ci liste ñi nga xamante ne jël na leen boo xoolee par exemple si Pastef man su Souleye laa gis ci Pastef mu jël mun mm. Maïmouna Dièye ba Bala na Fofana ñu laa gis mu jël leen ci Pastef amul ñeneen ñu nga xamante ne boo leen ñu dénk wàllu justice ci Pastef la bokkoon moom moo daan ànd ak ki nga xamante ni moom moo di lu ci ëpp ci Ousmane Diagne ci non non oui uh-huh. Aline Aline Aline Aline Aliou Diop oui moom lañ mhm. daan gis ci ci entretien yi. Mhm. avocat Ousmane Sonko tubaab bi nu mu tuddati moom Samba dimbali ma. Juan Branco oui. yooyu voilà mais boo calculer daal euh, ci ci parce que les grandes figures yi nga xam ne dañ leen doon gis ñuy euh, nu mu tuddati prôné yooyu gisuñu leen ci gouvernement bi boo leen calculer peut romb ñu juróomu baaraam yi nga xamante ne Yacine Fall également tamit tabb na ko boole ko ci mais bon su ma calculer je pense ne nu mu tëddee dañoo jug rek pour def nu mu tëddee euh, gouvernement boo xam ne day sobre et vertueux en tout cas daal vingt cinq ministres yi nga xam ne proposé nañ ko ak seen mhm. cinq secrétaires d'État j'ai pas mhm. trop compris mhm. j'espère que nu mu tëddee après je je pourrai comprendre euh, euh, loolu mais les vingt cinq ministres franchement soo xoolee peut-être ma grande surprise c'est de voir Jean-Baptiste Tine tey comme ministre de de l'Intérieur franchement je m'attendais pas c'est une très très grande surprise pour moi de le voir Jean-Baptiste peut-être man franchement xaaroon naa nu mu tëddee maître Moussa Sarr pourquoi pas parce que franchement ñu wax ko waxuñu ko il a joué euh, franchement rôle bu mag mag ci li nga xamante ne moom mooy parti Pastef mm. surtout ci wàllu justice mm-hmm. ndax ci seen que mu nekk ci ndaw ñu xam ak ñu xamul mm-hmm. que mu nekk ci personnalité yooyu moom moo nekkoon dans l'ombre mm-hmm. presque seen détenu yëpp moom moo yoroon dossier yëpp doon leen gën di jaabante te xam na il a fait plus de numutati quinze ans de numutati euh, Euh, métier je pense que ne maîtriser na trop la justice et bi may xalaat ne dañuy jël société civile koo xamante ne c'est pas un politicien parce qu'on avait l'écho que ne mm. kii jël du nekk politicien man mm-hmm. franchement mm-hmm. à mille pour cent j'ai pensé à Moussa Sarr que mm-hmm. que ce soit le général Tine te ñëpp xam nañ ne euh, tey euh, ñu ngi doon jiñ ne peut-être général Tine ak Ousmane Sonko dafa amoon benn certaine complicité bu nekkoon seen diggante en 2021 moom moo taxoon bi yàq yeeg toj yee bëree général Tine bàyyi woon ñëpp nekk ci caserne yi bëggutoon jël yenn engagement yi yeeg euh, euh, je sais pas peut aussi euh, voilà comment ça s'est passé sur la depuis tout à opposition bu bees bi Benno mhm. Bokk Yaakaar li nga wax ni moo tax ñoom ñi ngi def yenn poste mhm. comme quoi que ni Ousmane Sonko dafa récompenser ñi nga xamante ñoom ñoo ko xeexal non non non je ne pense pas parce que fii boo xoolee sur les vingt cinq personnes ñi ko doon xeexal dëgg dëgg nekk ñu fi parce que ñi ko doon xeexal dëgg-dëgg ki nekk au devant de la scène nekku ci liste bi peut-être ki ñi ko sësoon euh, rëq ñu ko doon gis la plupart du temps c'est Birame Souleye moom moo fi nekk euh, Bala Moussa Fofana moom moo fi nekk Maimouna Dièye moom moo fi nekk euh, voilà ñeneen ñu ci des ñu bëri franchement nekkuñu ci ci ci gouvernement bi kon man du ma jàpp ne mhm. ñi ko doon xeexal la wala noonu tëti gouvernement pàccoo la je mhm. pense que ne il a mis des sociétés civiles gis nañ fi ay technocrates ak yooyu je pense que ne pour l'instant mhm. bu ñu suñu kii naxul teg na équipe boo xamante ne Euh, c'est pour l'intérêt du pays franchement euh, nomination Guirassy nag moom en tant qu'allié Euh, Guirassy mënul mënul bert kenn franchement moom lañ def ministre de l'éducation nationale euh, ministre de l'éducation nationale peut-être euh, awma CVM pour ne peut-être ministre de l'éducation nationale maa ci doon xaar un petit peu Mary bi ñu ko jëlee yóbbu ko nu mu maa ngi doon xalaat mu nekk peut-être Abdourahmane Diouf maa ngi ko doon xaar ci ministre ministère boobu mais pas Guirassy je m'attendais pas à lui mhm. yaakaaroon naa ne dinañ ko nommer un petit peu sur environnement et autres voilà Ousmane moo xam nan lañ ko nan lañ defee seen i casting ndax euh, ñaari fan yi passé liñ laajte ci CV bëri na damaa dem ba naan xanaa ñoom ci CV yi moom <laughs> CV yi ñu jël nii yëpp xanaa euh, nu mu tuddati cent di kii peut-être ba ba tester seen CV ba finalement génne si vingt personnes et c'est très concentré et voilà hmm. li doon wax ne dinañ éliminer nu mu tuddati poste yu bëri yoo xamante ne la plupart du temps dañoo jàpp ne yàq xaalis la mais du du nu lu amal njëriñ askanu Sénégal ñu ngi yaakaar ne rek vingt cinq personnes yi mu jël dina ko mën a àttan ndax na ah, nañ fàttali ko ne Macky Sall loolu la waxoon au début mais au final euh, innocent yi kon moom tamit nañ ko numtati am xol euh, xel mu sell ak bu bu bu kii rek njott bu rafet dañ koy wooye njott bu rafet voilà waaye dangaa dégg olof nag mhm. <laughs> damaa garaaw ci olof euh, ban gis-gis ban lecture nga am tey ji ci ci ci bu yees bi man nag damaa xaaroon a xaar a xaar